Euh, Abdoulaye euh, Sow mi nga xam ne doon tukki ñu dëpp ko ni ko nag toogal nga xaar ñu naqaru na mbir yi nag waaye jëlaat na lépp xëpp ko premier ministre Ousmane Sonko nee na ci ay règlement de compte la nekk ñu déglu si lëf ci li mu wax te dellusiwaat. ñu ne dañ dem aéroport biñu àggee aéroport man ñi intendant ñu yore bagage yi wan ma ni jox nañ ma suma passeport jox nañ ma sama carte d'embarquement ma ñëw ba ci police ñu jël sumay empreinte bàyyi ma dem merci bon voyage. bi ma demee bay traversé ci la ma benn policier ñëw discrètement nag ak correction nag wax dëgg yàlla ne ma monsieur le ministre na lu ñuy contrôler mu benn liet laaj est-ce que am nga anas sa passeport diplomatique ma ne ko yoruma ko man depuis le bi ñu wàccee ci nguur gi laa denc suma passeport diplomatique amatul njëriñ et c'est un document personnel je le rappelle c'est un document personnel yaa y a aucune obligation de restitution du passeport man leen mais ku defar passeport am ordinaire di ci voyagé kon loo may laajee suma passeport diplomatique mu ne waa loolu sax du loo am a yëgal nii dafa am opposition pour nga génn réew mi man waa léegi waa d'accord comme que état de droit la nekk mën ngeen am ngeen mën ngeen ko wax mais ci fan ngeen ko sukkandiku te yow instruction bi may wax dañ ko war a jox kayit soo ma joxee kayit ma xool ko mu ne ma non instruction la ma ne ko ah, am kayit nag mais bu ñu la jox instruction dañ a diw ak te nag man ma ne ko mon lieutenant man si sama bopp du rapport nag du rapport Cour des comptes du rapport IGF du rapport inspection générale d' état bi ñu ma ko jox passation de service bi ma def def nañu lépp signé lépp te ba tey inspection générale d' état defuma observation ci li nga xam ne def nañu ko ci passation observation yi ma envoyé tontu naa ci te des observations de forme kon man ba ba tey gisuma kuñ fu ñu ma convoqué fu ñu ma oowee fu ñu ma wanee mu ne ma monsieur le ministre daal noonu la demee après ne ma maa ngi ñëw boobu laa ko gëj gis ma ne nag man am naa responsabilité am naa poids ci fédération sénégalaise de football ci joueurs yi joueurs yu bëri ci sama kanam la ñu commencé màgg depuis 17 ans ànd ak man ba tey su ma leen yëgalee loolu ci balaa ñu yéeg ci avion bi dana indi coow dana indi jeexi jaaxa te man le Sénégal est au-dessus de tout Senghor bi mu ma jotee ak encadrement bi ñu bëgg xam ban position la ñuy am ma ne leen bu ñu am benn position dem leen ngeen voyage ci jàmm man bugguma man sama personne ma tax ñu perturber équipe nationale Senghor ne en tout cas xamal ni football bi ak sport bi son solidaires avec toi man leen xam nga li ma bëgg mooy na Sénégal gagné te moo tax ma toog seetaan match ba mu jeex Sénégal gagné ma ci sant yàlla kontaan ci mais loolu moo am bi mu amee ma ne man su ma ci defee bruit à la veille du match mu am coow ma def ndànk et bi ma gisee nag ñoom ñu ko def bi ñu gisee ni man utuma benn yoon di victimiser wu utuma benn yoon di laq-laqal ñu commencé di wane ay information di wax ni wooy Ablaye Sow da doon jéem a jaww jàpp nañ ko aéroport ce n'est pas vrai loolu ku yaakaar ni man ci réew mii ku nga xam ni man su ma génn réew mi fu ma jëm su génnee réew mi fu mu jëm di ab laaj bu muy laaj loolu yi nag Assane lañ lay laajaat kon boog Daoud dafa doon dem rek gunge gaynde yi nee na sax bañ bur yu am moo tax ak bañoon joori fippu xataraay moo tax mu nëbb leen yëf yi bàyyi leen ñu dem ñu leen dem leen ngeen def seen liggéey mu dëppaat ñëw toog ndànk ndax amul intérêt daw loolu la wax. léegi yow xanaa kon koy sakko rak kii saag yu ndaw yooyu rek da war na yóbbu ñaari walis yi <laughs> seetaani mag si yor ñaari walis wali si topp la de. <laughs> ah saa yow yaa yéen a bëgg topp. <laughs> Ah, seetaani match kay day am ay <laughs> ay wëlis rek la Assane di jabolise naa ñaari wëlis seetaani match ah, non mais danaa bëgg a wan rek fee bi xam nga image day wax hmm. xam nga tey kii seetaan te déggul li li muy wax hmm. bu gisee passeport gis valise dina xam ne kii affaire tukki la <laughs> waaw lu mu si man di doon. mooy li ma leen di conseillé rek mooy ñun ñëpp ñoo bokk réew mi tey lépp lu mu doon lekk si waxtaan la waxtaan lay mujj am na doxalin waxaan boo ko doxalee rek dañu xam ne yow même tey jii bu ñu la tegee daan dañu xam ne teg nañ ko ndaanaan. teg nañ ko ku bëgg réew mi teg nañ ko ku ànd ak dal teg nañ ko ku ku ku yaru. loolu nag si doxalin wi tey jii exemple bu ñëwee. ñu dem di gunge gaynde ñëw bi egsi ñu ne ko ay la yéwén yow ko doo mën a dem mun leen jërëjëf daa demaat toog këram waaw mais yi mu ci dégg moo tax waaw yi ñu si maamum njaboot na ci réew mi ñu naan dafa daw waaw daa bëggoon buruxlu waaw am na njaboot mu waxtaan ak ñoom ñoo njaboot du njabootu boppam kese non non njaboot gi man doon Kaffrine déggoo li wax Kaffrine nee na même bu faatoo ba nekkub néew mm-hmm. day baatu da leen di gañee moom bu dee kenn néew waaw bu dee waaw léegi nag loolu moom mu ñu si kanam waaye daal ak lu mën a xew ma doon ñooma man lu ñu ma si wax du ma si génnee def benn déclaration dama naan tekk di seetaan rek bu ñu ba pare nag su ma dee wax li jot a jaar ma leeral mais léegi soo teelee leeral dafa am loo xamante ni xaj na sax mën nga ko mën nga see duggal ñoo xamante ni xaj na dugg dugg si woon daal yu si bokkutoon. Uh-huh. mën na see daal di géey mais boo waxee nga ni ah ñoom kat seen liggéey la ñuy def. Uh-huh. xaj na jot nañu ordre boo xamante moo leen di xamal ni leen Abdoulaye Seydi Sow kat dañ koo soxla na toog xaar kon damay toog xaar. Mm-hmm. bis bu ñu nee maa demal nag ma daal di dem. mais li ma war laay def te réew meet dafa tegu si yoon te ñii seen liggéey la ñuy def jeex na mais am na si yoo xam ne boo ko si dugalee rek mën na saa dugg te dugg sa woon. mais xam nga mënoon naa fipp foofu te fipp wut. parce que nee na man damay dem far force def naa def na passation de service. Hmm. Ah, du du nag du Cour des comptes du kenn koo xam ne yónnee nañ ko kayit bi wane ni moom daa war a def nangam. Hmm. te nee na amul benn bataaxal boo xam ne policier bi jox na ko ni ko lii kat arrêté bii moo tax ñun ma bul génn nee dañu ko rek ordre la. noonu naa fipp dem mais xam nga. dafa dëpp. waaw doole jaa bari maanaam moom dafa war a na maanaam ñoom li jot mooy ñii doon politique yoroon ay post bu ñu dem. <coughs> bu ñu bu ñu jàll fii waaw loolu rek kay la loolu kay jarul kii. en tout cas na topp ndigal li rek na topp ndigal li te bàyyi mu sedd rek ndax jàmbaar la te ndaanaan la. d'accord tey yàgg nañ ci équipe bi donte ñu ngi leen di gagné sax waaye macha allah daal andi nañ fi coupe d'Afrique kon ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax ni ko wax ne na toog diglu gars yi ba xam fan la wànneen di mujjee ki bëtam. d'accord jërëjëf alaaji ci commentaire yi am na koo xam ne mi ngi tudd Maguette Gaye mi ngi recommandé daal nee na solution ci Abidjan Abidjan incha allah. waaw kon boog soxna si wala Maguette Maguette na dafa am góor ak jigéen. comme ci mën doon daal bis bu la yàlla indi Sénégal euh, ba nga ñëw. boo ñëwee rek nga ñëw boutique la solution lu mu ci doon nga waxtaanee ko kilifa gi. Ablaye Sow de leeral na. kon ñu mhm. doon wax naa da doon yollee daa bëggoon a buruxlu. Mhm. leeral na Sénégalais loolu waaye na naqaru na ñaawlu itamit nañ ko dëppee ndax kilifa ko toll ni moom nekk fi ministre de la république ba pare ñu ni ko dëppal ni ko yalax bàyyi ko foofu sans garde corps sans dara. Mhm. waaw xam nga moom de man wax naa la ko fii defe naa démb. waaw ne su ma doon ñoom ñi nga xam ni amoon naa ndomba tànk ci réew mi ginnaaw bi premier ministre waxee ne am na juróom ñoo xam ne jot nañoo daw waaye bu jotee dañ leen bu fekk bu ko jaree dañ leen jëli loolu la wax mu ne yëf yi léegi mu tàmbale te bu te fi mu toll nii eh, ñi ngi ci Uh-huh. wax jooju bi mu jógee man ma yor ndomba tànk ci réew uh-huh. mu mosoon a yor ndomba tànk ci réew mi eh, damay dakkal samay tukki uh-huh. comprendre parce que loolu bokk na ci li lay sagal bokk na it ci li lay yëkkati parce que même bu fekkente ni <coughs> <coughs> jóg nga di dem rek même bu ñu la waxutoon dara booy dem rek nit ñi dañ naan ma ngay burux sawaay dem na de sawaay lii na sawaay laa na loolu lépp nag nga bañoon koo créer mooy li gën mhm. parce que lépp rek bu fekkonte ne bi nee na fédération bi ah ñun de dañoo yoroon ay ndomba tànk te am na loo xam ne wax nañ ko sama place jox leen ko keneen man du ma mën a dem mhm. comprendre moo ëpp ci moom moo gën ci moom mhm. wax na tamit ba ne amut rawatina nag nga gis sa mboorom moo xamante ne bi téye nañ ko fi mu dem aéroport ñu téye ko waaw donc loolu nag yow ngar ngir nga sagal sa bopp jàpp naa ni mooy nga toog. mais moom da doon football yi. ba tey rek. xam nga lu ci mën waaw xam nga football ak lépp mën ngaa jaar fii. burux def mais da doon football rek. léegi mu wane ay yoon. Mhm. mu ne. génn na rapport yi benn teewu ko ci. xam nga Sénégal nag ñun am na loo xam ni réew mi xam nañ ko. damay ñëw jël asan mi dénk ko toolu màngo yi ak toolu mboq yi. ñëw toog jàpp dénk ko sooy bu. Hmm. toolu basi toolu. basi ak dugub basi ak toolu naajo yi. Hmm. asan di randal ci naajo ji. may randal ci dugub ngay ca mboq ya. bu ko defee yow ngay toog fee rek di di danoo si ak ak. bu may càmbar asan fee du ma ko fa jàpp. bu may càmbar sooy bu fii ci li ma ko dénkoon du ma ko fa jàpp. caa te te te. wala xam nga yu mel noonu. tamit mën na ne mën nga nekk ci yoo xamante ni bii peut-être ci yeneen lañ lay saytu xam nga moom nee na ci kiiwam def na passation ak yooyu yëpp mais mën na am ci yeneen yoo xamante ni bii fa ay dossier am ne mën na ko bañ a xamagum nag peut-être fi mu jàpp fi mu jàpp ni maanaam mu orienté nit ñi fi mu jàpp ni fa lañ koy xool. mën naa bañ a ne mën naa ne feneen foo xamante ni fii jàpputoo ni gars yi xam nañ ni ma nga fa. Mhm. waaw. waaw comprendre ndax gars yi ku ñu téye am nañ ci ah. lu ñu xam ci yow. parce que mën nañ fay doxalee neneen tudd fa neneen. waaw hmm. ah, mën nañ faa duñu Masamba Xuja Biram Penda. waaw yaa ngi kii te fekk ne mooy diw. Ah. comme ndaw si ni fii rek euh, nii la xaw ma jigéen la tudd te boo demee ci Facebook ba ma jigéen Malal Diop la tudd. <laughs> ñu ngi moom ma jigéen Malal Diop. <laughs> bëgg a dëgg de ah, xam nga yooyu xam nga ma tey boo demal ci Facebook waaw di fa ma jigéen doo ko gis malal Jóob ngay gis léegi nga ñëw solution di seet malal gis ma jigéen waaw xam nga pareen saa te nag gars yi am nañ xereñteefu mën a càmbar lenn topp ko ah. ba ni kee mooy kële hmm. waaw journal yi sax daan nañ ko def daan nañ ko def ngay gis journal boo xam da ngay bind fii di bind fee hmm. fii nga tudd fa nii fee nga tudd fa nële ñaar yëpp nga di ko encaisse te yëpp yow a yow waaw. Ah. est-ce que. donc kon euh, daal Sow Seydou Sow mii. Euh, kenn convaincre en tout cas fi mu ñuy joxoñ moom xam naa newu fa. Hmm. enquêteurs yi moom loolu moom am benn élément ñoo na moom fi muy joxoñ pour gars yi xooli fa. kilig na fa duñ ko fa xool. pourtant foofaat mën na faa ne ndax passation bi waa ji moom yoonam nekku si woon. du moo ko war ah, a mais nee na nee na nee na ba léegi. Hmm. jébbaluñ ko benn këyit bi wane ne def na jubati. waaw ñoom saytu wuñ ñi ñu saytu la ñi ngi ñi ngi joxe joxe dossier pour ñu saytu te ñaawlu na jàppit bi ñëw ci nee na bu ñu ñëwee nee na laaj ndax dañ laa jox këyit buy wane dañ may dañ maa war a tere génn rek. mu ne ko hmm. déedéet instruction dañ maa jox daal. Hmm. Euh, dañ dañ maa jox sa tournée ba bul génn. kàddu gi mu dégg mooy këyit ba ba mu déggee premier ministre wax nga defe ne ba mu de ñoom xam nga mbirum këyit sax nañ ko ba di wax. parce que ñoom bu fekkonte bi ay nit ñu nite lañ këyit waruñu ko wax parce que ñoom barki Demba Ndiaye Ousmane Sonko fii lañ ko téye ñoom ñoo dem di lay. Mhm. di wax ne ñu barricade ko te amul luy benn décision de justice buy waree lii. Ah, léegi ñoom ñoo war a kon di def lu dul yoon waaye keneen amul sañ-sañ. tey ñoom ñuy laaj këyit ñoom ñoo war sa laaj këyit. Ah, ñoom bu ñu leen waxee dem leen toog rek dañoo war dem toog. Hmm. ci waaw. bu ñu leen waxee ne xam nga lan mooy këyitu ñu ba ñu ñëwee. nangu ne lii mën naa am ñoom ñoo ko nangu ci réew mi ñoom ñoo nangu ne lu mel nii mën naa am Ousmane ko ñaata yoon la taxaw fii euh, ñu interpellé ko mu ne lan moo koy justifier lan mooy justifier taxaw bi nga taxaw sama kër. ñoom ñii ñoo doon wër plateau yi naan way way c'est normal. loi da nga koy respecté. te amul mhm. benn décision justice boo xam ne bi moo ne woon nañ ko barricade teguñu ko fen dëgg la fudut ci ñoo yor nguur gi. Mhm. du dëkk. Mhm. léegi moom war naa wax moom war nañoo mën a ñëw taxaw ñoom di wax naan këyit sàngam këyit sàngam. yaa ngi dégg mais yow même amoo këyit sàngam mais am nga dégg nga wax ji. ñu ne am na ñu doon ku doon jéem a dem téye nañ ko loolu dégg nga ko. yow kañ loolooy sa këyit. waaw toogal. mais nee na lii lépp nag du yoon ay règlement de compte Ousmane Sonko ne ci ginnaaw. ah règlement de compte bu amee rek am na ko compté woon. am na compté ku njëkk waaw. dañu wax règlement de compte la dañuy fayantoo. dañuy fayantoo kon kañ dafa am ku defoon. bu ku def amutoon kon fayu du am. mais na wax nañu jaay doole. loolu la non ñu ko doon wax mooy. Mm-hmm. damay a wax loolu waaye bu ñu waxee rek mënuñu wax mënuñu wax ne dañuy jaay doole. waaw ah, lool loolu la wax loolu la jaay doole la dañuy fayantoo. jaay doole gii la wax. waaw lii Assane wax la wax. Hmm? jaay doole la jaay doole la wax mu naa wax jaay doole la de euh, rassuré na fa mu nekk nee na bu nekkoonum néew te du ci bàmmeelam sax day gañe day battre campagne waaw loolu moom li ci kanam raw li bët ndax damay gañe wala doo gañe li ci kanam moo ñu koy wax en tout cas na xam ni moom dëkk bi mu dëkkoon muy Kaffrine li taxoon mi di ah, tomb de laa dégg tomb lan la. ah tomb hmm? hmm? bu nekkee ci bàmmeel. non kii moo ce que est-ce que bëggul wax prison la. tomb de <laughs> <laughs> lan la bàmmeel. xam nga dafa am dëkk yoo xamante ni bii moom son yi ma wax la leen. Mhm. la plupart mhm. nguur da koy gañe. Mhm. nguur. ku ne ci nguur da koy gañe. waaw dafa am ci ay dëkk. yoo xamante ni bii noonu lay demee maanaam. nguur gu ñëw da koy gañ mhm. parce que nguur ñoom nguur la ñuy topp quoi ñoom topp ñu kii mhm. waaw léegi nag foo yu mel noonu boo demee nag ba commencé nag pourcentage yenn yi nga ko fay am muy wàññeeku cela veut dire que ni moom amatoo dara ci réew mi d'accord yooyu mhm. ay indice la quoi macha allah ba tey gis-gis bi lii li Modou wax mën na euh, mën naa ko déggee tamit maanaam euh, li ma ci li mu ci mën a déggee ñeneen déggee ko ci mooy même bu ñu ma tëjoon kaso damay battre campagne damay gagné te kon nii ma ko déggee moom dafa mel ni préparé na fu war a jëm waaw la